Yeah. toujours dans votre actu du jour de ce 27 septembre 2024 ginnaaw bi nga xamante ni parti Pastef pare na li nga xamante ni mooy ubbiteeku campagne électorale am élection législative yi bi mu toogee di transformé en point de presse jëmale ko daal ci état des lieux bi nga xamante situation biñ fi Qui dit di Bougane leader leader mouvement gëm sa peuple lay jàmbaar moom euh, réagir na bi nga xamante ni moom conférence de presse nous avons 150 organes de presse dans le wuyu si Bougane Gueye Dany fii ci siège yu sa bopp jàkkaarloog taskatu xibaar yi démonté pièce par pièce lépp loo xamante ni mooy document boo xamante ni moom mi di leaderu Pastef yëkkati na ko ci li nga xamante ni mooy campagne électorale déguisée ba noppi mu daal di koy xotti nañu déglu ji Bougane Gueye Dany dellu soit ni lépp c'est une question de volonté politique ceeb diwlin suukar ak électricité ak ndox ak gaz dina wàññeeku ci Sénégal ak yeneen loolu su ngeen ne mën nañ ko def xam ngeen ne mën nañ ko def dinaa def du ma def Six mois de pouvoir, quand et quelles seront les premières mesures pour répondre aux attentes des populations ah, Madame, euh, je, avec tout le respect que je vous dois, nous ne voulons pas que le point de presse vire à autre chose. Le débat, ce n'est pas le, cours de la vie au Sénégal ou les mesures sociales, etc. Encore qu'on en a pris, ce n'est pas ça le débat. Nous sommes dans un point de presse. Nous n'aimerions que les préoccupations qui sont soulevées ici cadrent avec ce point de presse pour mieux clarifier les choses auprès des Sénégalais et de nos partenaires. Merci. Sénégal c'est ça la réalité l'habitude est une seconde nature l'habitude uh-huh. est une seconde nature kooku mënuma ci dara viewers apologize I'm continue sénégalais ñu ngi chercher le diable pour lui tirer la queue Tay la sénégalais yi gën a Tay tey le sénégalais yi gën a ma am njàqare parce que boy wax nit ñi ne leen dinaa soppi sen dundu, mom mo waxoon ne buñu ko joxé réew en deux mois dana changer Sénégal Tay premier ministre bi dajalé ñenn ci gouvernement ma dégg ko muy wax mu ngi xel sénégalais xam nga lu mu di pour que ngeen ubbi seen bët te xam ne weer yi ñëw mooy gën a metti man ki ma dégg mu wax mooy sénégalais yi préparé wu leen te ci biir wax bi sax wax na ko nee na wuti solution yi ensemble waxuñu ko ensemble moom lañu sas moom moo fëgg dënam ànd ak ñi mu àndal ñu wër sénégal di fen mu ànd ak ñu koy fenal ñu déggoo seeni fen moom mu dàq leen a fen ba ñu jox ko réew mi c'est ça la réalité ba ñu jox ko réew mi kooku ñu jox réew mi tey moo ñëw taxaw di leen wax ne kooku ñu jox réew mi kooku ñu jox réew mi dégg naa la nga ne mu ngi ñaaw na mos koku ñu jox rew mi koku ñu jox rew mi mo def projection ci suñu croissance de de ngeen limu wax de ngeen chiffre bi mu wax neena ñaata la jëme croissance du Sénégal 6.5% Macky Sall mi nga xamné ne mo gëna ciuné ñëpp 2014 la défon 6.5% 2014 la défense 6,5 Moi, Ousmane Sonko nous fal pour nous soppar ñi Sénégal nous sommes devenus 6,5 alors que nous avons am pétrole réew mu am gaz nit ñi nekkoon projection wu 9,1 ou 9,3%. 3 pour FMI a fait fi ñëwee fan yele ci ginnaw FMI bimu ñëwé digënté juin juin bi passé. Loko wanyi Yopouko 7.1 7.1 Bi model si wate Nyon mwa FMI Gisne digente juye Ak septembre Reoumi nermenou Ekonomi bi dematou Nyi nyi diakle nanyou Nyi nyi Sektor ekonomi bi bari Dafa danou FMI da dikoy Revoirad yopouko 6.1 moom moo fëgg dënnam ànd ak ñi mu àndal ñu wër senegal di fen mu ànd ak ñu koy fenal ñu déggoo seeni fen moom mu dàq leen fen ba ñu jox ko réew mi c'est la réalité

amul dara loo xamante ni teg na ko ci jamono ji nag ñi ngi jëm ci ay élection législative bëgg na majorité ci assemblée nationale ak deal bi nga xamante ni bëgg na ko def loolu moo tax tey mu ñëw bëgg na naxaat askan yi ginnaaw nag bi nga xamante ni tey li ma ci gën a neex a mooy askan bi tey la ñu gën a ndóol askan bi tey la ñu gën a sonn askan bi tey la ñu gën a xiif dund bi tey la gën a cher jën tey la gën a ñàkk ndaw yi tey la ñu gën a jël gaal gi courant tey la gën a yokk courant tey ndox tey la dàq coupé donc lépp loo xamante ni ñu ngi ko doon xaar ci employabilité des jeunes muy chômage bi tey la gën a yokku tey fépp entreprise boo dem amul dara lu fa dox tey ñëpp ñoo xamante ni ñi ngi doon créer entreprise kenn créatul ñu jotoon créer as tuuti sax jamono ji ñi ngi tëj di dàq ñenn ñi alors que ki amoon 1000 francs waroon ci mën a jënd dara tey day yor 2000 francs sax du am lu mu ci jaay xañ na ko di jakarta maan yi tey ñi ngi jënd seen xaalis jël seen jakarta di liggéey amuñu ku leen ma nangam sangam alors que du ci lii lañ ko doon xaar depuis que mu ci nga gouvernement du Sénégal nekkee fi dara lu dul ay wax ay xaste ay réduction de compte ak ay règlement de compte waaye la ci gën neex may fu mu daanale kan la di waxal en tout cas kan la tudduwul tur ne maa mën maa mën a yore ñi fi nekk dañoo wër Sénégal di wax lu dul ànd ay ñoñam def ben foule ñooñu di wax luddul deug ñu Sénégal di wax luddul deug mom ci mu wax luddul vrai problème en tout cas muy réponse bi nga xamanteni ki di bugan indi na d'après bu mu déggé ay mu jip ci Sénégal je crois que dembu ñu nous fogon nañu Sénégal dafa am tremblement de terre ndaxte amul ben cadre bo xamanteni ben nit dégg na dal di koy gëm ba ci Abdourahmane Diouf bi plateau. kii di TFM di daal di bëgg a défendre nga xamante ne mooy lu ñuy wax génnee nañ ko vidéo am démb moom moo njëkk a taxaw ne kii nga xamante ne moo doon wax démb lépp lu mu doon wax moom xam na ne lu muy wax du dëgg fuul bi koy déglu xam na ne lu muy wax du dëgg te moom xam na lépp lu mu fag dee dara du ci dëgg kon donc séddale taamu naa ci kudduy njëkkee ndagam Abdourahmane Diouf moo ko xamoon tey Abdourahmane Diouf moo nekk ci biir kon donc dañuy jàpp ni que li Bougane Gueye dañuy wax mooy dëgg